Euh, je me présente, mon nom c'est Mohamed Abdoulaye Gueye. Je suis le coordonnateur technique du Pôle emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes du département de Kaolack. Je suis là accompagné de mon collègue, monsieur Niokhor Sen, qui est le point focal AME au niveau de l'espace Sénégal Service de Kaolack. waaw waaw ñu ngi fii dans le cadre donc euh, des enrôlements euh, pour l'offre de bons de formation initiale organisé par le 3FPT, Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, qui est, un, qui est une structure membre du pôle emploi et entrepreneuriat. Comme nous le faisons chaque année, donc 3FPT, chaque année, en début d'année, de faire euh, des génie et bon, permettre les euh, ñu mën a am subvention 90 pour cent si seen frais de formation 90 pour cent seen frais de formation pour résumer ko mooy tey su dee da nga war a formation bu 2 millions 3FPT euh, mooy fay 1 million 800 yi donc demande yooyu le jeunes yi nekk di enregistré nii suñu paree les jeunes yi nga xam ne ñoom la ñuy sélectionné selon des critères préétablis ñoom lañ nar a sélectionné dans les différents établissements yi nga xam ne demande nañ fa bon de waaw xam nga dafa am par exemple si li nga xam te moom la ñuy wax dans les orientations euh, gouvernementales il y a ce qu'on appelle le renforcement du capital humain et quand on parle du renforcement du de l'acquisition de compétences qui permet aux au niveau des entreprises permettre de mener des activités entrepreneuriales te loolu mu ngi tàmbalee si am xam-xam boo xam ne dina la permettre entreprise boo mën a dem nga mën ko fa présenter léegi si processus boobu nag jeune bi pour mu àgg fa foog mu def formation professionnelle léegi nag formation yi nga xam ne jeunes yi ñu ngi koy demander fii ay formation yoo xam ne dina leen permettre suñu paree daañ am diplôme yoo xam ne entreprise yi dina leen soxla ndax liggéey lenn kese lay tekki mooy nga am xam boo xam ne entreprise soxla na ko mu jël la nga koy liggéeyal mu fay et filières yi nga xam ne par exemple surtout mooy filières yi nga xam ne ñoo xew bees xam ne entreprise yi ëpp moom la ñuy actuellement ni am na si plateforme bi yu mel ni informatique yu mel ni électromécanique yu mel ni électrotechnique yu mel ni énergie renouvelable intelligence artificielle mais aussi y a des formations qui débouchent sur les métiers de la communication comme journalisme marketing communication les séances de gestion aussi am na comme informa informatique am na finance am comptabilité am na droit des affaires transit transport logistique donc di permettre jeune bi tey mu mën a am compétence boo xam ne entreprise dina ko soxla euh, bon de formation yu mel noonu actuellement nii moom la jeunes yi postuler waaw politique gouvernementale dafa am benn li ñuy wax smartness mooy intelligence boo xamante ni euh, daf leen permettre tey personne n'est exclu aucune couche n'est exclue mais actuellement enregistrement yi ñu nekk di def ça concerne exclusivement les jeunes qui ont un niveau quatrième euh, moyen jëm kaw à partir du du de d'étude de quatrième donc si la ñu mën a def CAP def BEP def BT BTS wala DTS wala li nga xamante ni moom mooy licence mais jeunes yi nga comme je disais tout à l'heure ma ne formation yi nga xam ne actuellement moom la ñuy mayee bon niveau yi mu concerné mooy ñi nga xam ne jot nañu jàng ba am certificat jàng ci cycle moyen bi dem ba quatrième wala troisième parce que formation yi niveau CAP la déparé dem BEP dem BT BTS ak licence donc ñi nga xam ne par exemple amuñu benn niveau wala jànguñu ñooñu am na programme yu ñu leen jagleel mais tàmbaleegul moom la ñuy wax les certificat professionnel de spécialisation yooyu mooy commencé dans cinq mois am na aussi beneen structure boo xam ne allié ak pratique ci à partir de niveau zéro mais formation yi nga xam ne si la ñuy maye bon présentement ni niveau yu mu concerné mooy quatrième troisième seconde première terminale dans tous les départements du Sénégal actuellement enrôlement yi ñu ngi fay déroulé wu au niveau des Sénégal espace Sénégal service donc euh, bi xam ne bu Kaolack bi tey suma collègue bii di monsieur Sané moom moom moo ko géré xam ne ñoom ñoo héberger les pôles emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes yi xam ne ñun moom la ñuy coordonner dans tous les départements du Sénégal actuellement les enrôlements sont en train de se tenir et que actuellement on a enrôlé plus de 35 000 Euh, ñu ngi ci dernier jour de clôture bi sûrement à la fin de cet après-midi danañ xam exactement combien de jeunes ont été enrôlés à travers les différents départements du Sénégal waaw quota yi dépend par exemple du nombre d'inscrits par département parce que tey suñu paree dañuy def prorata bu nekk en fonction de nombre d'inscrits bi nga am dafa am benn code euh, benn coefficient bu ñu lay attribué donc ñun tey à partir de 17 heures dinañ xam département de Kaolack ñaata personnes lañ ko attribué ça va dépendre du nombre de personnes que nous allons enrôler muy traduire fréquentation bi nga xamante ni jeunes yi def nañ ko au niveau du pôle emploi donc euh, activité bi aussi dafa organisation bu exceptionnelle parce que xam nañu donc euh, le pôle accueille un nombre inhabituel d'usager. De, de, de Actuellement, donc, ce qu'on a pris comme disposition, et d'ailleurs c'est un, une occasion pour moi d'adresser mes remerciements les plus sincères à l'ensemble du personnel de l'espace Sénégal Service donc les membres du pôle emploi les membres de l'espace Sénégal Service donc euh, les membres de l'AME donc les ASP et tout le personnel tout le monde s'est déployé pour le bon déroulement des activités actuellement kenn mënul identifier ku pôle emploi wala ku espace Sénégal Service wala ku bokk tout le monde s'est déployé actuellement ni ñëpp ay enrôlé même pour la plateforme de la 3FPT du 3FPT on l'a dupliqué les agents de la DER les agents par exemple de l'ANPEJ ñoom ñëpp ay enrôlé pour permettre à tous les jeunes fu ñu mën di jógee rek bu ñu ñëwee au moins ñu mën a enrôler wu pour que aussi seen chance ñu mën ko maximiser pour ñu mën a am accès au bon de formation donc c' ça. Bonjour, euh, mon nom c'est Fatou Nder. Je suis étudiante à l'UVS en licence 1, sciences économiques et de gestion. Bon, tey dañu fay ñëwoon parce que la 3FPT dañoo mettre à notre disposition des bourses de formation pour nous aider à nous à nous intégrer dans certaines écoles de formation. Et je trouve que l'ONU, c'est une très bonne initiative parce que d'une part, ça va aider la jeunesse euh, sénégalaise, surtout les étudiants, à pouvoir intégrer yenn écoles yi yoo xamante ne duñu nekk à notre niveau ou bien duñu fi mën a dugg pour cause de peut-être moyen et je dois dire que metti na l'attente a été trop longue parce que yàgg nañ fi xaar nañ ba sonn moi depuis 6 heures du matin je suis là il fait presque 13 heures maa ngi fi mais je pense que tout euh, c'est pour une bonne cause parce que peut-être euh, bu ñu choisir après bu ñu sélectionné genre coono bu ñu ci daj yi yëpp peut-être dina dina ko mën a dina ko mën a kii daal wàññi